premier ministre euh, joxoñ euh, baaraam assemblée na leen seen règlement intérieur bi lijjanti leen ko finalement yeneen ngeen lijjanti ko kon devant le peuple lam waxoon ak mbir mi ni mujjee deme dafay mel ni kon député yi ci liñ doon liggéey ak ki seen doxalin am na lu ci sooxe. moo tax ma ne xam nga bu doon moom. Euh, assemblée bi moom député la woon. xam na bu baax règlement intérieur li muy def mooy fonctionnement assemblée bi mu indi fi ay député aussi. ñoo ñëw fi indi règlement boobu ñuy ŋàññi si lañ liggéeyee depuis ñu fal ñu ba tey muy 2022 xam nga kooku tey mënut a ñëw tey ne règlement bi foo la. koo xam ne lépp loo bëgg a jàllale da ngay convoquer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. boo bëggee def motion préjudicielle boo bëggee def euh, motion de censure boo bëggee def question plutôt euh, préjudicielle boo bëggee def motion de censure bu ñuy installé bu ñuy bu ñuy voté pour élire le bureau de l'assemblée bañ fa nekkee 2002 2022 ba tey mm-hmm. ak règlement intérieur boobu noonu la ñu liggéeyee waaye kooku mën nga xëy un jour beau jour rek parce que ñu naan le premier ministre war na ñëw jàkkaarloog député yi rek nga ne règlement intérieur bi baaxul mm-hmm. xam nga démarche bi ñu nekk nii dañu commencé woon ba pare démarche mooy dynamique de réactualiser le règlement intérieur déjà ñun ñu ngi si démarche boobu noonu euh, c'est faux heureux nag que ñu def ko de façon consensuelle parce que ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée mooy que ne lii nga xam ne tey mooy règlement intérieur bi c'est tous les groupes parlementaires en plus des non inscrits ñoo àndandoo travailler ko liggéeyandoo ko ba am consensus sur li nga xam ne mooy règlement intérieur bi. mais jàpp leen laa bëgg rek ngeen jàpp nday faatu je pense que askanu Sénégal tamit xam nañ ko. mooy que ne déclaration de politique général aajuwul tënkuwul ci règlement intérieur assemblée nationale et ça Ousmane le sait très bien chef du gouvernement. Ah. il sait très bien que c'est la constitution moo ne ko. demal nga def déclaration de politique générale buñ la falee waxuñ nag délai. constitution waxul tel jour wala beneen jour mais mais euh, amoon na c'était plus opportun et pertinent que buñ la falee ci nu mu gën a gaawee nga dem wax sénégalais yi. li nga xam ne lan mooy les grandes orientations fan nga jëmale réew mi. ci koo xam ne tu es ou bien vous êtes le porteur titulaire du projet. Mm-hmm. un projet. qui a été vendu aux Sénégalais. Et ce produit qui a été vendu aux Sénégalais a été porté par le Premier ministre du Sénégal. naam Sénégalais dañoo fal Bassirou Diomaye Diakhar Faye mais nag il faut comprendre que le le protocolaire du projet c' est Ousmane Sonko. Ousmane Sonko pour man dafa waroon na ñëw ci assemblée nationale jàkkaarloog député yi. def li nga xam ne mooy déclaration de politique générale am wax ñu fan la ñu jëm parce que moom nag sunu collègue la woon. ñoo mm-hmm. defoon au treizième législature mu nekk un brillant parlementaire un courageux parlementaire fii ci assemblée bi kon gëmuma waaw bu doon wax euh, noo une fois la wax ni ñu génn c'est pourquoi ni ñu génn mm-hmm. parce que moom dafay wax dem du wax bu waxee du déglu kenn mm-hmm. dafay wax dem les gens également les parle les députés ñoo ko doon rendre la pareil. ko doon fay borom. parce que nag bu dee yow da ñëw taxaw wax. Mm. ñu déglu la say collègue déglu la yow it wax nga bu say collègue di wax nga toog déglu leen. loolu laa jàppee ne moo waxaloon ki assemblée nationale bi euh, muy euh, décision boo xam ne euh, groupe parlementaire bi jëloon ko bu bennoo boobu c'était ay miro ñu ngi le président du groupe kon donc nag kooku danga nga génnee assemblée am noo génnee assemblée yàlla def nga war a ñëw assemblée avec une casquette de chef de gouvernement. pour moi ça doit être une fierté. nga ñëw jàkkaloog ñi ngi fi bàyyi woon ak ñu bees ñu fi ñëw ak ñu bokk sa camp. nga wax fan ngeen jëmale Sénégal. waaw léegi c'est tellement simple. waaw mais balaa balaa ñuy ñëw ci moom ak ndax dina ñëw du ñëw da ngeen ubbi session extraordinaire daal di joxe ci règlement intérieur da ngeen fay jaaree tëj ko wala dañuy xaar DPG bi finalement dina ñëw balaa ngeen koy tëj. xam nga bu ñu tëjee session extraordinaire euh, day durer 15 jours. waaw ça veut dire kon mën na ñëw. Mm. Euh, bu ñëwee c'est ce qui est souhaitable voilà mu ñëw. parce que euh, il faut que ñu éviter mu un précédent tey jii euh, fal nañ la ëpp na 3 mois. Mm-hmm. depuis mois de 100 jours yi passé na. Mm-hmm. voilà donc 3 mois yi passé na. Euh, il serait mu ñëw def li nga xam ne moo déclaration de politique générale am man dama jàpp na sax euh, moom avant buggoon na ko def parce que gis nañu defoon ay circulaire demandé euh, ay secrétaires généraux yi ministres yi ñu préparé wu et cetera donc dama jàpp ne xëy na am nañu ko ci génne ba moom tamit mu dem ba il di dit que ne ñooñu ils ont raison parce que nag Ousmane quoi qu'on puisse dire parce que man dama jàppoon ne te loolu lañu mos a wane courage politique. ku gis par parcours am ku gis jaar-jaaram euh, xam ne euh, du ko ñàkk courage. mais dafa am loo xam ne tamit da mooy confrontation bugg ko contradiction bugg ko que loolu la wan. te dama jàpp loolu moo tax tamit que nanguwut ñëw jàkkaarloog député yi nga xam ne tey war nañ ko mën a laaj bu ñëwee. gisuma majorité boo xam ne boo jëlee boo jëlaan kàddu ñu génn àll ñooñu aussi ñoo simmi sa malaanu kiiraay en tant que député nga am foo jaare ñoom ce que di nga am fitu jànnaaw ñoom ci wàllu DPG nga xam ne loolu day attirer l'attention de tout un peuple mais aussi de toute la communauté internationale ndax ragalul aussi ñëw ngeen subir loo ko benn revers boo xam ne lu ñuy nattal la ci taaxari ci taaxari xam nga nag euh, quoi qu'on puisse quoi qu'on puisse dire mm-hmm. Euh, Benno Bokk Yaakaar bi na assemblée c'est une opposition républicaine une opposition parlementaire républicaine je pense que euh, ñoom xëy na comme dañ ko doon def dañu yaakaar na ñoom euh, tey bu fi bu premier ministre ñëwee nous on aurait même comportement non je pense pas je pense pas que parce que nous sommes assez matures parce que ñoom il manquait de maturité bi ñu dugg si assemblée il manquait carrément de maturité politique bi ñu ñëwee fekk nañ fi ñu mel ni groupe yow groupe wàllu tey boo xoolee groupe wàllu ñoom ñu ak ñoom euh, euh, amuñ majorité mais ñoom ils avaient cette posture de wàllu. bu bu républicaine nga xam ne ñun sax amuñ majorité mais am na ay loi yoo xam ne dañ ko doon jàllale ay budget yu ñu jàllale ñoom dañ ko doon voté. Mm-hmm. parce que jàpp nañu ne Sénégal moo leen ñor tey lu mel ni budget Sénégal. biñ koy voté mais gisuma kenn kuy ci yeewi benn député bu yeewi bu ko voté te ndey faatu munu ma ne Kaolack ga ñu bokk man ak yow. Mm-hmm. ma am na problème mu mënd inondation yaa nga fa indi problème assainissement ministre bi toog daal di dem ah honorable Adji Kat sama programme bi sama lii ma indi tey jël naa ci jël naa ci en charge mm-hmm. loolu ngay laaj. bu ngeen voté sama budget dinañ ko door waaw man ma taxaw ne man voté wu ma budget bi kon c'est c'est assez contradictoire mm. et c'était le comportement des députés yi Yewwi dañuy ñëw wax seen problème département yi ministre bi ne leen mu ngi nii jël nañ ko à charge euh, voté le budget ñu démarré mbir yi ñu ne ñoom voté wuñu mais moment boobu est-ce que du liñ téye woon seen leader ci kaso bi am seen i responsable ak militant yu téye woon xëy na ci moment boobu la woon ak fameux terme bi may bañ répété comme xale yi nelawaguñ <laughs> non non no parce que 2022 euh, la ñu commencé woon loolu. waaw je pense que boobu. Euh, Ousmane Sonko jàppaguñ ko woon. kon ñoom euh, euh, mooy manque de maturité bi rek. ak tamit jàpp dañu jàppoon ne fii dañoo ñëw rek pour pour defante dañoo ñëwoon rek pour ñun benn lu ñu indi rek. ñu pàccal si kaane ñoom fa lañ ko jàppee.